ancien maire de Khombole bis bi euh, ginnaaw bi ma sant yàlla julli ci Seydina Mohamed di nuy collaborateurs yi nga xamante ni ñoom lañu àndal bis bi yëpp di wax ni bis bi moom mbégte lañ ci am ak kontaante parce que yàlla dogal na aussi bi nu amee yéene bi am ko ak sunu mag boo xamante ni fii la moom it fii la dëkk fii la juddoo muy un professionnel de la santé di tudd Mor jiite kuréel gu ñuy wax SOS Daara Santé ñu collaborer pour taxawal bu bés bi mel nii te ma wax ni du guléet parce que bii mooy ñaareelu édition bu mel nii mel nii kon bu yàlla dogalee ñu tax taxawal programme boo xamante ni dinañ ci euh, dinañ ci xarafal lu toll ci juróom-ñaari fukk wala juróom-ñetti fukki xale ak lu mel ni lu toll si téeméeri jigéen yoo xam dañ leen di consulter xool seen wàllu wér gu si wàllu cancer yi nga xamante ni mooy faral di lor jigéen ñi euh, yàlla dogal ñu woote ko xombal waa xombal ñoo wuy si kon amoon lu sant waa xombal wan leen ni euh, loolu nga xamante ni ñu ngi leen koy xalaatal di leen ko bàyyi loo xel ci seen sante ñoom kon xam nañ leen njariñ bi kon mënul def lu dul wax ni am nañ si satisfaction si bis bi. waa xalaat bi mooy tout simplement yàlla dogal ñu juddoo xombal màgge fi fas yéene doon ay citoyens yoo xamante ni dañu amal njariñ xombal ba tax na heure bu nu toogee rek ñi ngi bàyyi xel di xalaat naka la ñuy def pour. répondre population populations des Xombolois yàlla dogal na tey programme bi ñuy def euh, bii mooy ñaareelu édition comme ni ma ko waxee sàng waaye bii du programme bu mel ni rek la ñuy def si wàllu santé ci xombal ndaxte yenn saa ñu lëkkaloo ak comité de santé bi fi nekk te Ousseynou Diop jiite jiite Ousseynou Diop jiite ko ci wàllu li nga xamante ni moo soxal wàllu santé ci askan wi yenn saa yi aussi ñu def ko ak la zone 6 de Xombal te ay ndaw di fa yëngatu si wàllu tàggat yaram nga xamante ni ku wax tàggat yaram wax euh, santé yenn saa ñu def ko ak yeneen structures yi nga xamante ni ay góor ak i jigéen ci dëkk bi ñoo koy amee te seen lépp di jëm si santé kon noonu nga xamante ni nag noonu lañ ko amale tey noonu lañ ko doon amel démb te incha noonu lañ koy fas yéene di ko amale di am ay xalaat ak i projet yoo xam ne dinañ ko las jëmale ko si askan wi. waaw xayma bi comme ni ñu ko waxee euh, ci njëlbeen gi. daanaka lu mat juróom euh, euh, juróom euh, soixante soixante xale juróom benn fukki xale lanu lanu waajaloon ni ñoom la ñuy xarafal tey jii ba fi mu jamono bii may waxee yow nii médecin bi wax na ma léegi toll nañ ci juróom-ñetti fukki xale bi ci des mooy ci wàllu jigéen ñi nga xam ne leen doon xool seen wërgu-yaram si wàllu cancer ñi ngi si ci njëlbeen nga téeméer lan waxoon moom la ñuy xool tey jii médecin bi nee na ma téeméeri romb nañ ko bu yàgg xañ na du ñàkk fii ak ñuy julli tàkkusaan ñuy waajal pare dina dinañu mën a xayma globalement wax exactement chiffre mais en tout cas loolu jot na fi am loolu yëpp nag boo ko gisee mooy li tax mu mën a nekk mooy xanaa ànd kook ñoo xamante ni dañu am Pastef am lu nu bëggal askan wi mais ñun tamit ñu fas yéene nekk nit ñoo xamante ni lépp loo xamante ni rek askan wi dafa nekk seen soxla ñu jaamu ci sunu kéemtalaay kàttan voilà. sàng médecin bi ñun duñu ay professionnel de la santé mais yàlla dogal na médecin yi nga xam ne ñëw nañu duñu ay collaborateur euh, bi ñuy préparé lu mel nii réunion séance de réunion yu ñu doon waxtaanee wax nañu lu am solo cest à tey programme bi yamul rek ci xool seen wér-gu-yaram si wàllu cancer ndax am nañ ko ci euh, ci ci ci ween wala ci si seen awra mais da ngay gis ni ñoom dañuy dañuy dem ba nga xam ne xalaat na ni bu ñu demoon ba gis ko sax ku ko fi am am na suivi boo xamante ni dañ koy jël prise en charge entièrement parce que ñoom it dañoo am ginnaaw koo xamante ni partenaire la ONG boo xamante ni daanaka ñoom lu bëri dañ koy lëkkaloonteel bi ci des mooy euh, fii nii ci kaa bi en tout cas ci xombal pour l'instant ñoom fii ak pare wuñu mënuñu wax exactement war ñu tirer bilan pour xam ñaata cas moo fi am yan ñoo fi gën a sori ñan ñoo fi gën a sonn yàlla dogal yàlla dogal na bu bu nu bu nu paree si loolu. nu woote waat xamal waa xombal ni mbir mi lii la su ko defee ànd ak ñoom nag ci combat boobu ba lépp loo xamante rek mun leen leen ci mun leen leen ko saafaraal ñu def ko incha allah. Euh, c'est Abdoulaye Sylla secrétaire exécutif Diwane ONG Diwane et partenaire de SOS santé SOS SOS Daara. waaw xale yi ci wàllu santé xale xam nga dafa vulnérable et que yàlla dafa dogal. du ñëpp ñoo man du ñëpp ñoo tal itam kon SOS e daara bu ñëwee pour gunge parents yi pour ñu euh, jongal xale yi vraiment loolu dafa am solo surtout gratuitement en collaboration avec le maire de de Khombole vraiment qu'on remercie beaucoup SOS e euh, daara nag daf ko yàgg def mais cette année ci dafa am ñaari partenaire stratégique muy Diwane Salik ak la commune de Khombole stage bi waaw euh, am na solo trop ndax dañuy constaté que cancer euh, du col dafa bëri ci réew mi fi mu nekk mu ngi lor jigéen ñu bëri euh, moo tax met Marie Marie Stop en collaboration ak Diwan Salif ak SOS Daara def benn équipe ñun ñu bëgg loolu mu mu law ci Sénégal fépp foo xamante ni jàpp nañ ne mën nañoo ak dimbali soxla yi si loolu defal leen ko ci anam yi mu gën a et gratuitement. ah xayma xam naa nañ xaar ci kanam tuuti comme ñu ngi en cours de travail su paree dinañ ko xayma wax li nga xam ne moo ciy mébét waaye li ci ëpp solo mooy jàngat bi bu amee dina am si wér boo xamante bi euh, ki nga xam ne mooy euh, madam madame Diop. Mané Fall décidé na pour def suivi ak encore ñëpp ñi nga xam ne am ay cas yoo ay cas critique la incha allah. Ouais, euh, comme vous l'avez constaté, euh, aujourd'hui, euh, en collaboration avec euh, un partenaire, un fils de Khombol, SOS euh, euh, Santé Dara, dont le président s'appelle Morfal, qui est un fils du terroir, Euh, en collaboration avec nous, on a essayé d'organiser pour la deuxième édition des journées de consultation médicale, médicale et puis spécialisée et en collaboration avec bien sûr des partenaires, des collaborateurs euh, qui sont tous là et qui nous ont accompagnés pour que cette journée soit belle. Et, et est venue cette idée-là est venue parce que tout simplement, on est, on des fils de Humboldt Et on connaît, on sait que le plateau médical de Khombol n'est pas trop trop relevé. parfois aussi, en tant que tout simplement, je dirais, citoyen, on a envie de faire quelque chose pour ces populations. Et comme vous l'avez constaté, je viens de le dire tout à l'heure, on est à notre deuxième édition pour ce genre de programme, mais on ne s'est pas limité ça aussi, à, ça, à cela sur le domaine euh, de, euh, de, la santé au niveau local parce qu'on a eu mener des activités allant dans le sens de la euh, de l'amélioration des conditions de vie des populations de Khombole euh, en collaboration avec euh, d'autres structures sanitaires que ça soit la zone à travers la jeunesse euh, que ça soit aussi euh, euh, les femmes directement dans leurs différents quartiers respectifs. Et donc moi je pense que tout simplement c'est quelque chose qu'on devait faire et puis on l'a l'a fait comme vous l'avez vu, on est Il y a à 20 médecins euh, qui se sont déplacés. Et ils sont, euh, au pour euh, circoncire à près une soixantaine d'enfants. Là, à l'heure où je vous on à plus de 80 enfants qui sont déjà circoncis. Et pour la consultation du cancer col de l'utérus et du, du sein, euh, au début, c'était 100 femmes qui ont été prévues d'être Et là, bon, on n'a pas encore fini complètement la consultation, mais j'avoue que je pense que globalement, le bilan est satisfaisant. Les Khombola ont répondu présent parce que tout simplement, ils sont conscients que ce programme, cette activité, euh, vraiment, euh, le, on, on l'a tout simplement conçu, on l'a tout simplement fait parce que il en avait besoin les populations. Donc je pense que ça nous réconforte nous aussi en tant qu'acteurs de développement, en tant que politique. de concevoir des projets qui sont vraiment qui ont un impact direct pour les populations. Oui, oui, oui, oui, naturellement. Non seulement il y a un dispositif de suivi, mais avant aussi, euh, c'est-à-dire euh, pour ce qui est la circoncision, euh, je pense que les médecins, ils ne me laisseront pas mentir, ils ont déployé, ils vont faire euh, ce qu'on appelle, ils ont utilisé les nouvelles technologies, en tout cas des technologies performantes pour cette circoncision qui va permettre, qui consiste à, une fois l'enfant circoncis, dans deux, trois jours, il peut vaquer à ses euh, préoccupations. Mais au-delà de ça aussi, il y aura une équipe de suivi qui sera mise en place. C'est-à-dire les médecins qui sont aujourd'hui avec nous à Humboldt, ils vont laisser quatre ou cinq qui resteront jusqu'à demain, après-demain. Mais il y a aussi d'autres partenaires qui sont des Humbolas, des professionnels de la santé qui seront avec nous durant le temps qu'il faudra pour assister ces jeunes-là. en cas de pépin voilà. La charge des, enfants euh, très importante selon nous parce qu'il se trouve qu'il y a des parents qui ne sont pas à la hauteur de satisfaire ce besoin à temps. Et que SOS Dara est là puissent euh, trouver la chance de se faire circoncire à temps. Alors SOS Dara est là depuis 20 ans en train de travailler sur le plan national et sous-régional. Mais Diwan est aussi une association, une ONG internationale basée en Suède qui euh, euh, euh parce que nous avions vraiment un de 60 circoncis, mais nous avons Et même il y en a une demande qui reste et qu'on qu essaie de satisfaire dans les jours à venir.